voir la parce que bëri na ñu la joxoñoon comme le plan B de de de de Pastef même benn moment benn euh, voilà xëccoo xaw bu ndaw par rapport ak kan la Ousmane Sonko di di di choisir. je pense que ambition présidentielle bi c'est beaucoup plus benn stratégie au cas où euh, euh, candidature Bassirou Diomaye Faye ñu rejeté ko pour que yow nga mën a nekk benn plan C donc je pense que ay ay kàngam ngeen ay nit yoo xam ne ne. effectivement en face de vous amoon ngeen benn situation ak régime bi fi nekk boo xam ne pexe nañu lépp pour que ñooñu bañ a soo ko bañ a nekk candidat euh, ngeen wut ay ñaar ñetti euh, turu pax yoo xam ne bu ñu fàttee pax bi ngeen dem ci bee donc je pense que fi nga nekk ni li ma xalaat mooy da nga nekk di dérouler rek loo xam ne waxtaanee woon ngeen ko depuis le début je pense que intention d'être vraiment un candidat pour élection bi musul am defe naa lii dafa bokk ci li ngeen tëralool pour xeex ak ak ak état bi man loolu laa loolu gëm je voyais saa ça venir mm. ba pare beneen mooy Euh, qu'est-ce que vous faites de vos oh, programmes. Bon, oh, bon, oh, tu lui fais un centre en retrait mais bon. waaw <laughs> mais non mais non. Babacar bàyyi ko rek mu central ma yow tam euh, xanaa yow bu fekkee yaa ngi may défense di ma kale. bàyyi ko mu central mais non mais du loolu question ku nekk. Kylian bu damul non ku nekk ak xanaa bu amee défenseur dina am attaquant. waaw mais non mais du man. centre dama ne dama ne dama ne lii nii yow mosoo pour man mosoo nekk candidat loolu kañ du centre en retrait li leer na kañ. candidature boobu nga posé woon noonu donc posé woon ne ça faisait partie d'une stratégie. pour essayer de au cas où Diomaye fay parce que bi ñuy bi ñuy euh, bi ñuy euh, valider candidature Diomaye Faye ñu bëri daf leen bett ñëpp yaakaaroon nañ ni boobu aussi dañ koy invalider te bu ñu ko invalider woon ñu bëri doon nañu wax que ni yow nga nekkoon nga beneen option donc je pense que comme bële valider nañ ko nga dawal kër ki mais peut-être que waxuloo ko Sénégalais yi te loolu da nga ko war a wax Sénégalais yi beneen bi may wax mooy pôle boobu ngay wax pôle bi dafa am programme wala yow sa yow da nga am programme waaw euh, parce que boo amee programme foofu rek laay def boo amee programme lan mooy sa différence su programme ak bu programme Ousmane Sonko bu fekkee ni sa programme ak programme Diomaye fay ñoo bokk mais est-ce que am waroo am humilité wu nga am même programme ngay gis kenn koo xam ne si si si dayoo moo la ëpp dayoo moo la moo la ëpp ay militant mais pour pourquoi nga am munoo am humilité wu ranger wu derrière moom dès le début et oublier cette prétention d'être président de la République jërëjëf Bouba euh, question bi bu am solo la euh, ñaareelu question bi nga posé bu njëkk bi tontu na ci tuuti parce que boo nee stratégie la ñu nekkoon am na ci dama lu may nangu la parce que mooy dama ko assumer depuis le début bu ñuy vivre ci situation bu anormal ñu nekk ak pouvoir boo xam ni ñun gëm nañu ni bu pexeem sotti woon amul kenn ci ñun kuy nekk candidat bu fekkee nag gëm nañu ni dañoo am projet bu ñu bëgg mu dem au pouvoir ala kulli xaal il faut ñu wut pexe yu ñuy def pour mën a am ay candidats d' abord à la candidature yu dem conseil constitutionnel ni bu ñu jàllee ñu xool comment on fait ba foofu c' est une logique politique bu normal ku am xel di politique di nga ni loolu mën naa ko def. bi ñu ñëwee ba jàll fenn rek sa analise d' accord naa ci lu bëri fenn rek lañu ciy waroo mooy boo nee mësuloo nekk candidat wala mësuloo bëgg yegg jusqu'au bu pour être transparent ba démb xanaa xëy na sax ba tey avant ñu koy def suñu réflexion toujours mu ngi doon wax ni. est-ce que bu ma waree def retrait de ma dafa war a nekk avant le premier tour wala man war naa continuer ba bu amoon un éventuel deuxième tour bu mu amee 2 pour cent wala 3 pour cent wala 4 pour cent ak lu ma mën a am. foofu moom doon na baax ñu dem dajale. ba démb ci guddi. ci suñuy réflexion ñu ngi woon ci loolu. xam nga kon ku yegg ba foofu mënuloo ko ne bëggoo woon dem wala bëggoo nekk candidature dama dem ba yegg foo xam ni dañu ni ñun dañu nekk ñett ci suñu pôle politique. bu waree am ay éparpillement de voix c'est-à-dire que man lu ma am ci ay voix mu amaana ci Bassirou Diomaye Faye da koy ñàkk parce que dañoo bokk kon fii ñuy toll bi ñu analyser situation politique bi xëy na nag ñu juum mais ni ma ko analyser ñu gis campagne bi ni muy déroulé man fa ma yegg fa caravane Bassirou yegg fa Ousmane yegg ak li ñu gis ak ñu ñu waxal ci ñu xam élection ak politique dama ni am nañu yaakaar ni élection yi mën naa yem ci premier suñu yaakaar nag te ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy dox ñu ngi ciy wax ma ne bu fekkee ñun jàpp nañu ne élection yi mën nañ koo gagné ci premier tour te ñuy pôle politique te Bassirou moo ci jiitu damay arrêté avant premier tour. y a Déthié Fall aussi dans le pôle non. ah mu ngi ci yeew yeewi moo tax ma expliqué la dafa am pôle. ah dafa am. xam nga li ngay wax ni du yeewi ah. non ok c'est un sous-groupe de yeewi. dafa am ñu lu ñuy wax. dafa voilà tey nga ko créé oui oui non no laisse-moi te dire dafa am les alliés de Ousmane Sonko. amoon na sax coalition Sonko président moment bi may wax damay retirer sama candidature bu Sonko demee coalition Sonko président moo fi nekk man ak Habib Sy au moins ci ñi jàll ci candidat dañu bokkoon ci pôle boobu mais dégg ngeen fi Lacoste les leaders alliés du candidat Ousmane Sonko. mooy man ak Habib nga yokk ci Jante nga yokk si a Bousso ak ñeneen ñu mel ni ñun. man Jante Maïmouna Bousso ak Habib ci Yewwi la ñu bokk. des poids plumes. c'est ça bu la neexee man nag man nag man nag dana leen respecté ci dara. parce que Ousmane Sonko poids lourd on est d'accord. mais le rest ñi nga lim Lacoste. Euh, ba tey que des poids xam nga xam nga politique. y a ce qu'on compte et y a compte bu amul woon du toog fii. parce que yow. y a ce qu'on compte. foo féete yow. et ce qui compte dafa am. mais foo ci féete s'il vous plaît. foo ko bëgg a féetee rek. dama lay laaj. dama dama lay bàyyi rek ma sama raisonnement politique. non mais dama dafa am. ce qui compte et ce qu'on am nag itam troisième bi am troisième bi mooy ce conte compte et qui compte yooyu yëpp daf cee am politique moo tëddee noonu pour yi ñëw yeggale ci li ma doon wax ci suñu stratégie ak Lacoste ok allez suñu groupe boobu benn la ñu dañu am sous groupe les alliés de Ousmane Sonko bu Sonko demoon nekk candidat ñun ñëpp dañu koy jàppale de le premier tour du ñu nekk sax ay ay déposé conseil constitutionnel le fait que demul ñu éclaté ko ci suñu biir mais bi ñu demee ba jàllale suñu trois candidats ñu sant yàlla parce que pexe bi gouvernement bi wala régime bi laloon pour ñu bañ a dem fexe nañ ba jéggi ko mais bu ñu ñëwee tey ma daw dem campagne xool dëkk bi gis sénégalais yi jox ñu nopp sénégalais yi di déglu caravane bi bu Diomaye sénégalais yi fa ma dem ñu jox ñu déglu ñu ma jàpp ni après évaluation on peut gagner au premier tour dañu ne nañu regrouper wu c'est ça notre notre logique bu ñu regrouper woo du ñu am éparpillement de voix ci suñu pôle bu ndaw boobu su ko defee bu ma jàppalee Bassirou Diomaye premier tour mu jàll alhamdulilah dégg nga buba bu jàllul premier tour <clears throat> dem deuxième tour fekk man indil naa ko li ma mën lépp au premier tour bu boobaa ci la ci la yeewi askan bi mais léegi boo boo ci la yeewi askan bi di jàppale boo ko jàppalewul woon ba dem ba de bu premier tour bi nga wax amoon mhm. fekk ku mel ni Abdourahmane Diouf mhm. ak ñoo ñëw dès le départ ñëw ànd ak Diomaye te yow àndoon ak moom yaa ngi sa mhm. est-ce que ëllëg éventuellement bu doon bu doon après mu gagné mu waroon séddale affaire yi séddale mooy ku nekk da nga jël poste loolu moo fi ne. Mm-hmm. ah est-ce que yow duñ la considérer kenn kenn koo xam ne au départ jàppale woo Diomaye président loolu tam aussi. bu boobaa est-ce que gars yi li nga xam ne liggéeyoon ko. xam nga xam nga xam nga foofu ni ma koy ni ma la ciy xëy na du neex a dégg ci ku ma xamul bu baax 2019 bi ma président Ousmane Sonko seet see ni ma dama bëgg nga jàppale ma à la présidentielle laata muy ñëw président sa Seck moo njëkk a ñëw sama siège. ni ma Cheikh Tidiane dama bëgg nga soutenir ma candidat la mu dem Ousmane Sonko ñëw wax ma la même chose ma woo suñu secrétariat politique ni leen am nañu ñaari candidat yu ñu demandé ñu jàppale leen qu'est-ce qu'on fait suñu secrétariat évaluer lépp ni ñun mënuñu jàppale ku dul Ousmane Sonko puisque ñoo bokk idéologie plan au plan politique mais plus encore lu sénégalais yu bëri xamul ñun bi ñuy tëgg avenir Sénégal bi ñu bëgg di bind suñuy document de vision Ousmane Sonko dafa doon ànd ak ci mbind mi bi ñuy lancé avenir Sénégal bi ñu bëgg 2015 Ousmane Sonko ngi ci biir salle bi toog ça veut dire que kooku jegeyoo nañu jegeyoo boo xam ne ci plan politique moom rek la ñu mën a àndal mais bi ñu décidé ne danañ ko jàppale mu ñëw suñu siège ñu ko koy wax li ma ko waxoon 2019. tey jii mooy sama taxawaay ma yegg yaa ngi occulté seen bokk Ziguinchor ak Saint-Louis. Sannar UGB waaw loolu dafa rafetal rek. loolu c'est cerise sur le ah, neexal mbir mi mais li ma bëgg a wax foofu mooy bi mu ñëwee seet si ma bi ma koy wax ni dinañ la jàppale devant le Sénégal et le monde entier dañu ko ne ñun dugguñu ci politique pour ni maa ngi ci yóotu dara wala maa ngi ci il faut ma am ci au plan personnel quelque chose c'est sans condition amul benn politique buy ñëw ba élection di jot ngay jàppale nit naan ko jàppalewuma la ci benn condition yokk naa sax ne ko boo gañee nga jàpp ni gouvernement bi nga def sama profil gisuloo ko ci waruma mën a nekk ministre bul ma def ministre bu fekkee damay fausser say calcul ça ne m'intéresserait demal nga def loo xam ne ça nous permet de régler les problème du Sénégal gis nga tey jii loolu mooy sama sama taxawaay bu Bassirou Diomaye Faye gagné woon bu baa nga naan bu ñu demee deuxième tour gaa ñi jiitu la na ñépp nekk ministre man ma bañ koo nekk su fekkee loolu mooy li méngoog li baax ci réew mi ma dem liggéey sama liggéey parce que yàlla dafa ma suturaal ba mosumaa def calcul ci politique te ñaanuma yàlla bu ma ko naree def naa bàyyi politique dem defi leneen c'est ça ma posture et ma sànq da nga da nga da nga wax ni jusqu'à hier euh, xamoo woon ban décision ngay jël mais il a été dit nii ni da nga rencontré Ousmane Sonko avant ngay jël décision bi. deux fois sax. deux fois est-ce du moom moo la obligé nga retirer sa candidature. à vrai dire pour être honnête et juste dama ko koy témoigner parce que ba looloo il est fait il m'a dit dañu ànd liggéey ci lii depuis des années on a fait tous les sacrifices possibles parce que xam na li ñu ci daj ñun ñëpp. mu ni ma candidat nga à la candidature du lu ndaw démb bi mu ma koy wax démb si guddi pour vous dire pour être très transparent démb il était presque deux heures du matin et fi ñu rencontré wu y' a plus improbable que ça parce que caravane la def jóge Kédougou romb Tamba di dem Kaolack man ma jóge Tamba nekk ci ginnaawam di daw ba dab caravane foofu la ñu doog a jokkoo toog waxtaan parce que ñu ngi doon bëgg a wax mais ku nekk yaa ngi sa caravane mu ne ma Cheikh Tidiane candidat la candidature à une présidentielle du lu ndaw. dépassé nga obstacle yu bëree bëri xam naa ni am nga am nga am nga sa mouvement am nga ay nit ñu la topp am nga famille am nga ay am di jàmm am nga sax ñu la bëgg a voteel décision wu retrait wala bañ a retrait ci sa loxo la nekk seetal lu dal sa xel ak lu méngoo lu conforme ak loo jàpp ni moo war a am mais kooku man ak moom noonu la ñu mës a fonctionner au plan politique man maa def sama évaluation ma ni jàpp naa ne élection yii ñu jëm bu ñu yàlla dimbalee ak lii ma jot a gis man nag damay gëstu am naa tuuti xalaat ci réew mi am naa fi xam-xam maa ngi seetlu sociologue la ma ne bu fekkee lii ma gis da di ko yaakaar continuer na jusqu'au bout am naa yaakaar ni mën nañu gagner élection yi au premier tour ma ne ko kon su ma yeggee Dakar je ferai déclaration laata ma koy def laa koy doog a yónnee message ne ko lii laa fas yéene wax c'est ma position leneen lu mu mës a doon c'est comme ça qu'on a fonctionné donc du mu lu mu lu mu ma imposer bien au contraire il m'a dit defal dal sa xel mais man li dal sama xel mooy lii ma leen présenté. jàpp naa ni candidat laa ba yegg si à trois jours d'une élection présidentielle. ma am ñu ma àndal au plan politique ñu porté projet bu ñu am yaakaar ni mën na changer réew mi. projet boobu bu ñu si jàppee mu jàll au premier tour dootuma gis Cheikh Tidiane Dièye dootuma gis suma intérêt parce que bu ma ko gisee rek gëmuma yàlla. amul lu ma ministre di defal xëy na lu ma yàlla defaralul ba noppi. te ñu bëri dañ naan dama bëgg nekk ministre wala directeur pour. dimbali liggéeyal sama réew. d'accord te man gëm naa ni. 22 ans ngi nii. ci tey bés bu ma xëyee maa ngi liggéeyal réew. loolu lañ mës a xam ci donc donc maa ngi liggéeyal Sénégal loolu du jafe-jafe ci man. këf loolu ma bàyyi la waaw bàyyil ma dugal benn rek. Euh, ma bëggoon xam. Euh, euh, docteur. yaa ngi wax depuis sànq am na loo xam ne moom nga gis ak moom nga jàngat ba jàpp ne élection yi yéen premier tour ngeen ko nar a gagné. Mm-hmm. ba mu jaral la euh, bàyyi sa candidature daal di jàppale bu. Euh, Diomaye voilà même bu fekkente ne depuis le début xam nañ ne que yéen a bokk projet mais mm-hmm. lan nga gis exactement ba nga xamante ne tu